gis nga cofeel bi ngay def ci ku tedd ci Amadou Bamba Xaadim Rasul muy mboolem ku bokk ci beneen tarixa yëg na ne li ngay wax dafa neex alhamdulilah man maa jël responsabilité boobu ndax ci yar bi nga koy jàngalee dimension bi nga koy jàngale ak ci tegtal bu wóor bi nga koy waxee nga borom xam-xam mënta nax borom xam-xam mooy téer mënta nax moroomu téeram ku ñëw amulee finition xam na ko waaye borom xam-xam bu toog di la déglu xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul c'est universalité mën uh-huh. ngeen ko waxee acca nee ne kàddu yi mu ngi noonu ah, ah, mën nga ko nag ah. <laughs> mu jénga ko mën <laughs> donc di leen euh, jaajëfal rek di leen bàyyi ngeen tàggoo xam naa euh, sëñ am di la bàyyi nga tàggatoo leen di gërëm bu baax di gërëm xaaj bugaan uh-huh. euh, taxawaayam rafet na lool waxtu wuñ jokkoo rek donte ay minute la daañu waxtaan ci lu soxal nit ñi soxal réew mi. murit la murit la sunu xarit murit la. murit la de. di ko ñaanal yàlla taxawu ko sàmm ko. ci doyloo gim nu doyloo. murit la mu màggal tubaa ñëwee bi ma wooyee daf ma wax ne ma liggéey baa ngoog. Mm-hmm. Eh, bi weeru koor yi ñëwee it ndax nu kadaalika kon yàlla ko yàlla sàmm. waaye ñu gën a ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha. amiin Cheikh mun taxa ku mat a ñaanal la. Mm-hmm. te résultat yi mu def boolewul dara ak wax daa def résultat ñëpp xam ne marqué na empreinte loolu mooy li Cheikhul Khadim waxoon ne sama mujj gu nekk mooy gën a rafet sax sama njëlbeen waaye jàmbaar dëgg mooy Cheikh Mawlud Muntaxa téye na réew mi géré na nit ñi fexe na ba nit ñi rus koo ngay murit ak doo murit soo ko nee jàkk di nga rus Cheikh Mawlud Muntaxa ndax loo wax mu reetaan la rek ne la mën nga nekkal fa nga nekk man mii nga fa nekkal ngay jé ngay génn jàpp na yaa ni toll fekk tolloo noonu moom ak baaxaama ni toll yàlla na ko fi yàlla yàggal euh, di ziyaare bu baax sëñ Maam Mor mu sëñ Abibu moom Cheikh Mandoumbe euh, di ko ñaan yàlla dolli ko kàttan waxtu wu ñu nekkee ci liggéey bi sunu xel day dem ci moom ndax taxawaayam ne général di taxawee ci noonu mm-hmm. Cheikh Amadou Kara yàlla na fi yàgg tamit Serigne daf nuy woo féetanu foo xam ne ni mënuñu koo wax ci télé mm-hmm. moo ko soxna moom i kebe mi nga xam ne ak sëñ Ablaye tege tage soxna moom i jataay bu ñuy def ci sëñ Touba daf nuy wéttali day bàyyi ba jataay bi jeex sax mu door laa woo wax la yëg-yëg bi mu am yàlla na ko fi yàlla yàggal lool may ko mu yeggale waaye sëñ Maamoor mi nga xam ne euh, damay wax ne waxtu woo boo yëgee dara ci sa yaram sax mhm. boo ñëwee bala mu laa ñaanal sax sa ajo faju mhm. di ziare sëñ Moustapha Seck xasaayit maa ngi gis message am léegi di nuyu sunu sëriñ sëriñ aboo moom Cheikh Abdoul Ahad soxna maam ami bintu Cheikh bu sama sëriñ di nuyu baax soxna na Nafi Silla ak waa kër gi yëpp soxna Ndey Xadi di sunu soppee nekk fii ci télévision bi muy soxna Ndey Xadi Caam di ko ñaanal yàlla defal ko wér moom it. ak sëñ Sam Lazanbe mi ngi yóbbu sëñ Sam Mbacke sama xarit la waa kër sëñ Massamba yi maa ngi jot léegi message am mook sëñ Abdou Aziz Mbacke Modou Aïssa mm-hmm. nee na ma xolu murid yëpp sedd nañ ñu ngi koy ñaanal moom it muy ku baax ku am yërmande sëñ Mouhamed Mbacke Kamil sëñ Mamour Bousso waaye monsieur le maire Ndiaye Diop faw ñu ñaanal ko mm-hmm. sànq laataa may ñëw mm-hmm. dafa yëkkati kër jox ma ne ma def naa ko addiya te ab taalibe Cheikh la bërki dem bi ñaan ne Cheikh Maw Cheikh Mamadou Muntaxa da ko ne li nga may defal sëñ Touba tax nga di ko nga di ma ko defal boole naa la ak sëñ Touba. Cheikh Ahmad Tidiane Ba directeur général euh, euh, Cour des comptes ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare ci turu maître bay di mbay ndax taxawaayam ak Lat Diop directeur LONASE oh, oh. ñu ngi koy ñaanal baax sëñ Saliou taxawaayam am na solo lool di nuyu euh, bu baax a baax sëñ Ibrahima Fall Touba Foras waaye di nuyu sëñ Moustapha Fall Mourid Sadikh eh. di ko ziyaare baax baax moom it di taalibeb daaru salaam di ziare mboolem koo xam ne yaa ngi ñu doon topp suñu waaju jigéen ñu ngi koy nuyu ma ca tubaa di ñu topp di ko ñaanal yàlla taxaw ko ak suñu soxna ak suñu njaboot yépp noo ngi leen di ziare ak soppe yi ak xarit yi di nuyu waa groupe kenn du Serigne Touba. Mhm. di nuyu suñu mag soxna moom i ñing di ziare soxna Astu Jaxate soxna maam Mbéyeloo soxna Astu Gaawaan Diop soxna maam Awa soxna Adama Ndiaye soxna maam Jaara Basir soxna Nogoy Diop soxna Jee Mbàkke rakk la ñu ngi koy ziare bu baax ak soxna Bali sekk di sant bu baax nday soxna lii ak Pierre Moussa Thiaw sëñ bu may RTS maa ngi jot léegi message am mook Pape Djibril Fall maa ngi leen di ziare baax ak soxna Adama Mbacke sañ donga Silla ñëpp ñoo ngi leen di ziare waaye groupe kenn du sëriñ bi yàlla daf noo boole ñuy liggéey soxna Kumba Saaxu soxna Sukayna Dimme muy ay nit ñu baax ñoo xam ne yàlla ak sëñ Touba boole sëñ Moustapha Touré. nga ci ànd ak sëñ Ablaye Diop Bichiri sëñ Ablaye Diop Bichiri mhm. muy liggéey boo xam bu am solo la. Mhm. ñoom ñëpp bëgguma leen a lim. Mhm. soxna Ndiaye si bi ca Belgique biig rek bi ñu def plateau ndeysaan addi ju bari la ma yónnee te sëñ Touba rek tax ak soxna ñaaña ca Paris soxna Aji Diop ma ngi ca Floride day taxaw ci ñun jataay buñ jëm danaan la ngeen di sol maa leen koy jox ñu ngi koy ñaanal yàlla moo yaayam soxna faama ak waa kër gi yëpp euh, tey nag sëñ Moustapha Diop tey sir mii moo ma wax ne ma tey moom maa lay habillé addee sëñ Tuubaa nga dem te moom noo bokk ndey ak baay ndey ak baay lañ bokk yàlla féetale ko ci xaside yi féetale ma ci waxtaan waaye nag muy jàmbaar muy sunub sagit nag mhm. sëñ ngun Ngunda day sama xarit ñuy ànd ak moom guddeeg bëccëg du ñu tàggoo mhm. moom sama xarit la mhm. di sëriñam nag sëñ Cheikh Ngunda Fall moom sëñ Saliou Fall day sama sëriñ di koo xam ne ni féete na ma fu bare bare bari moom it mm-hmm. Mm-hmm. ci wàllu ñaan di ko ñaanal yàlla sëñ Mouhamed Diatara soxna Nene mm-hmm. noo ngi lay gërëm sëñ Abdourahmane Sy bi maa ngi gis léegi message am muy koo xam danoo yàgg yàlla booleenu ci kóllëre goo xam ne kéemaan la euh, waaye maa ngi lay sant bu baax di sant soxna Fatou euh, Abdou moom it ndeysaan di taalibe murid di taalibe borom daaru di koo xam ne murid ah, saadix la ah, Oustaz Mouhamed bég naa lool yàlla na yàlla fay sëñ Cheikh Mbacke bég naa lool Amérique lan daje ñu génn rek danaan ma defaral sa garab bi wëlbatikul ni xam nga man rek tubaarkàlla waaye loolu lépp ak baax a ko waral maa ngi jot léegi message su sëñ Jibril Ndaw sëñ Moustapha Saliou Saw maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla taxawu la sëñ Saliou Khoule yow duma la sant dama lay ñaanal yàlla taxawu la may la kattan goo yeggalee ndax sunu diggante sëñ Touba rek moo ci dox sëñ Babacar mal marmali fii lay liggéey waaye damaa am ci moom sañ-sañ mhm. tey sëñ Touba rek ko waral ma di ko muy murit nag Pierre Abdoulaye Lam ma ziyaare ko mais mais mais yow yow numéro bi numéro bi sama téléphone. waaw sama téléphone bi mi ngi toj de sa numéro. sama numéro moom la laaj. sa numéro waaw sama numéro 77 la 335 14 89. 335 14 89 jërëjëf sëñ Saliou. macha allah soxna ne ñu ngi lay gërëm di jéglu bu baax nag. ndax euh, dañoo bokk ci kër gi. bokk ci liggéey bi. ñaan mhm. ñaanaleel yàlla. Mhm. lu mën a xew ci réew mi bugaan moom. Mhm. mi ngi def li ko war. ndax li ko war mooy investir ci réew mi di doomi réew mi. bu ñuy liggéey mu ñëw taxaw bokk ci réew mi dañ ko war a reconnaître mhm. mais waruñu ko dàq mhm. xam nga CNRA jàmbaar lañ lool liggéey bu am solo la ñuy def te wax dëgg yàlla bëgg nañ leen lool mhm. waaye buñ nangu ñu leen diaboliser télé amul télé buy opposé ak tele buy nekk au pouvoir ku ci nekk dangay xool lan mooy sa ligne nga nekk ca seen TV télé ligne ligne am général la su weeru koor ñëwee mu changé programme ay la yéwén dañoo war a bañ koo diaboliser. Mhm. mais ñu jàpp neen loolu la weer wi doxe ñu di ko doxe réew moo dem muy réew islamique dañuy contrôler lépp na muy doxe mhm. waaye du génn seen programme réew kon yàlla leen yàlla sàmm yàlla leen yàlla taxaw mhm. ku yàgg ci teen nag baak fekk na la fekk la fa yàlla dina dem ba télé bii mu def fi doole joo xam ne ni dana kawe njort waaye su du ma daaneel te nuyuwuma alaaji Mbàkke yu fay day sama waajur di sama xarit di sama wëllëri di sama mbokk sama lépp la ndax daf may woo xaaju guddi damay def émission sax muy bëgg a jeex mu ne ma mayaat ma 30 minutes soo paree dinaa la neexal mhm. loolu lépp ak baax la ak waa personnel Touba TV bépp sëñ Cheikh Balla Samb sëñ Mbacke Mbodj ak mboolem ña fay liggéeyee ñu ngi leen di ñaanal yàlla sàmm leen di leen jéglu baax naan leen baraka di la jaajëfal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di la jaajëfal bu baax a baax yow tamit euh, euh, Serigne Am ci euh, accepté bi nga accepté suñu invitation di la ci jaajëfal xam naa waxtu bi ñu loon sax jeex na tàkk mais mënuñu ci bañ a tàggoo di la tàggu rek yow tamit Serigne Moustapha Saliou di la jaajëfal bu baax a baax d'avoir répondu déjà ci invitation bi ñu la ci ñaanal di la ci remercier sëñ Saliou Khoule. yow tamit ñu ngi lay waaw man man man doo ma tàggoo noonu de. yaa ne woon léegi ku mu neex wax ki la sañseel <laughs> yaa ma ko waxoon kati création moo génn fii. ah kati. waaw kate ma génnee fii. ah kati def na lu rafet. Euh, boroom këram di Habib. Euh, mhm. di taalibe tamit. Mhm. waaye mënu maa tàggoo te du ma nuyu it euh, président Mamour Kandji. Mhm. xam nga ñoom ñun la ñuy gis rek waaye billaay ñoom ñoo ñuy jàppale de. buñ fi nekk lool mu ñaaw. président Lat Diop. lépp loolu ma war a ñaanal. ñaanal la ma ko président Lat Diop. bu Lonase waaw DG Lonase ñaanal man yow sax jox naa la tàggoo bi léegi jëlal. <laughs> mais xam naa peut-être dañuy bàyyi sëñ Moustapha euh, Saliou moom itamit mu tàggoo très rapidement comme ça ñu mën a euh, euh, tëj waxtaan wi. ok jërëjëf soxna nen naa sax ñoo ngi santaat bu baax a baax waaye jërëjëf Serigne Hamidou Diop. ak sëñ Moustapha Diop tey si rek sëñ Cheikh Ngunda maa ngi santaat bu baax a baax di santaat Serigne bi ci jotaay bi. ndax wax dëgg yàlla bi ñu fi toogee ba tey mën nañoo wax ne dara génn ci sëriñ bi te ab murit moom fu mu nekk liy sagam rek mooy li mu nekk dara bu dara du ci génn sëriñ bi ñoo ngi santaat bu baax mbokk yi nga xam ne ñoo ngi doon woote di yëglu ne ñoo ngi topp jotaay bi ak di ko rafetlu ñu tudd ci quelque rek ku ñu ñu ci tudd te ñoo xam ne eh, waxtu way xat rek sëñ Alaaji Buso ak ku ñuy wax sëñ Alaaji Mbaj di sama ay wëlëre maa ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen siyaare di leen sant bu baax a baax a baax ngir jàpp gi nga xam ne dañ koo jàpp ci suñu jëmm ji bëgguñu lool sopp ñu lool ngir jëmmi sëñ Tuubaa mhm. ku ñu wax sëñ Bàcc ñi ngi it sama wóllare la maa koy siyaare bu baax sëñ Pape Gora di imam la jeunesse nekk fële ca ginnaaw raay ak ku wax soxna Kiné Amar sëñ Moustapha Mbacke di sëtu maam Thierno sama maa ngi koy siyaare bu baax ak sëñ Jili Mbacke ca Touba ak sama waayu bopp nag sañ Abdoulahat Dieng di wóllare ci sëñ Am Diop di waxtaankatu sëñ Tuubaa boo xam ne e, jàmbaar la lool ak soxna Marème Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax di di nuyu soxna sa mag sax noo ngi jégaluwaat bu baax a baax kàddu yi fi jub rek lu ci jub noo ngi koy sant yàlla lu ci dëngit ni ma koy waxee bis bu nekk du ñu di ay malaaka laa yasuna allaha ma amarahum wa a ma yumaroon wa axiru daawana an alhamdulilahi rabil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kontaan nañ bu baax ci waxtaan bi di la jaajëfal bu baax a baax alors ma ñëw rek ci euh, sama xarit ah. Cheikh Mbacke. jërëjëf Ndeye maa ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla may nu kattan gu nu wooree. te mu nangul nu ko te defal nu tawfeex te génne fi mbas mi. di nuyu bu baax sëriñ Ahmadul Muxtaar xalifu Cheikh Moustapha al Karim sëriñ Abdourahmane xalifu sëriñ Cheikh Gaynde Fatma Xaadim nag mi nga ne mooy sama sëriñ euh, mooy sama bunt sëriñ Mbacke borom Louga di nuyu baax waa askanu Ndar maa ngi ko yëpp sëriñ Xaadim Amar sëriñ Mar danaa nag sëriñ Moutala fu mu jëm mi ngi nuyoo maître Ibrahima sama promotionnaire nekk euh, euh, greffier en baax Isaaxa Baabu maa ngi koy nuyu baax sëriñ Mamadou Cheikh Amadou Moutada bala si sëriñ Mbàkke Mara mun ma ko fay moo tax ma dégg àlaaji ànd naa man plus de 30 aéroport mhm. fu nekk yàlla na ko yàlla fayal moom yóbbu Makkatal soxna su Moutada fépp fu Cheikh Moutada jaar rek